laa in duxu yow xuma ne wooyeef na alaa xaay doon waral aji faddu fa damina mu warlu ko sumaan kala topp mu weddi dañu ne diw de ameel na ma kooku nekku fi nga ne ah warlu naa ko bu dikkee de mu ñëw weddi ne ameelu ma ko dara kooku bon su boobaa yow daanañ dara du la waar ci sartu ina mis ndem taxul ci kanam tuuti akoo akam bi bay na ci ci seede waaye bu fekkee kat waa ji ne woon ameel na ma andi na seede yu wér ci ñu ne ameel na ko su waa ji ñëwee bu weddee da nga fay de dégg nga de aw xaala wala mu wax li mu dayin ñeel aji woote xalaa mun kiri waral aji weddi da ngaa fekk waaju woote ni diw mi ameel na ma waaja di weddi naan amee lu ma ko nga ne ko bàyyi ko mu dem in lam aati leen dikkiwu ma la bii ci moom la xadim ci ëllëg bu ëllëgee bu mën a ko andilul faa naa man daamin aji warul ma aji warul laa wala mu yàtti dikkiwul bii ci moom kon it dara du la war bor ba du la war waaye nag inamis du jëm taxul aqul aqam bi bay na ci waaye su fekkee waa ji ko doon woote naan ameel na ko xal na ay borom ci aqam ci seede ah su boobaa boo andiwul waaja da nga ko fay waa jam yàlla ba nga déggee dana war daanin la sax bii xiraar yi ci tuddam nag su fekkee tey nag waa ji ñu woon ameel nga ma tey moo ñëw ne ameel naa ko te yow yaa ko noonu bu ëllëgee dinaa ko indi mu ñëw ci suba sañu ameel naa ko ndax su boobaa àq ja dana sax am moom kay àq ja du sax kaw laa ñu am na ci ñaar jëmt mu dële la da nga de sëriñ bi nee na te xawlil mu dee ni ki wax aji aji woote aliyu waral ko ni ko aji ñuy digal ma al yow ma tey in lam oofi ka ndéem di fayum dikkalu ma ne ko xadan ëllëg fale ci la nga xam te da nga woo ko alee war a ma xaqul ak la ndax kon su boobaa waa ji dafa ñëw ne la ameel nga ma nangam nga ne ko waaw digal ma ba suba bu subaa su ma la ko andilul li ngay woote dëgg la ndax su boobaa kon àq ja dana sax te kon ameel nga ko am àq ja saxul mu dellu ci xawlaani bi nga ne war a delloo la aji joxal te aji warul bi maa nga xam ne addaa joxal na ko maanaam boo gàddoo nit la nga ko fayal lépp da nga dellu mu joxaat la ko wala mu xaw man donte lu ñuy xayma la ni ko tey da nga koo fayal loo xam ne dañ la nga joxe lu ñuy xayma la da nga del ci mu joxaat la ko in sabat an dem tax na daf ko jañ da waaw waaw wa jaasa dagan na sunu hoo yewen loo daanin anhu sa bor ba dégg nga de bi maa la nga xam ne jaasa dagan na lil xarimi ñal aji leb di ala la fay ci wax ja gën a wér maanaam daal ki nga xam ne moo gàddu woon su ko neexee dem yewen loo ji waaye war a ja delloot na moom aji gàddu ja bi naqali ci gën jaa néew min hum ca bor ba aw xiimati wala xëy na nga xam ne moom la yëwén loo wayen bari a dem dañ na al aslu cosaan bari a dañ da nga de maanaam ka gàddu woon su fekkee tey dangaa gàddu nit moom mi ñu gàddu woon da nga de ñu baal ko yow itam dañ nga waaye laag soo waxuma sosaan ba su fekkee tey dangaa dañal ka gàddu woon du tax ka yoroon bor ba dañ lu tee ñu ne nga sañ koo fayu ma ni waxu jële gaayef na fay bor ba bi maw ci daanin ci deewub daanin da nga de bu ko defee bu fekkee daanin dee na dañuy jël bor ba te ci alalam fay ko waaye nag war a jaxa delloot na waaye soo aju doonu daanin ba da ajal yi gënaaw dig ba bu dig ba jotee ah comme ci alalam lañ ko fay ñu dellu ca kamu gàddu woon ñu jox leen li leen li ko li ko seen bàyyi gàddu woon ayul xarim yi wala xarim dee maanaam ki nga xam ne moom lañ doon fayu bu dee su boobaa kon ñu jël ci alalam fay bor ba suñ ko rek woon dem bàyyi na ko fa ndax xam nga ne ku dee moom dootuñu am benn bor bu ñu dig képp kum amee loon keroog ba nga dee la ñuy daal di ñëw ñu fay ko walaayu taala bu deful sàkku dégg nga de seen xadara ndeem teew na al deful sàkku daanin seen xadara ndeem teew na alxari mu aju leb ja moo ci leen di aju woomal dig bi jot na ci leboon nañu ñuy taxaw woomal kenn du fayu daanin aw lam yëpp wala soril isbaat wa saxal alali ku ñu gàddu ko alali ci daanin wala sax ki ki leboon nekku fi waaye daanin mën naa yóbbu ki mu leboon ba ci alalam mu ni ko lii alalama kon bu boobaa kenn du fayu daanin wali wal xawlu wax ja nag loxoo ñeel na daanin fi mala yi ci woomalam waa ji gàddu la dig ba jot na kamu gàddu woon ñëw dégg nga de su boobaa yoon nee na bu ko nee am nga yow mi leboon mu ni ko aw ma gàddu woon la ñuy dëggal waa afaada jëriñ ñet na sartu ak si ma sartu jàpp ku mu ci ñoom saasoon na ko yow mi leble bu la neexee nga ne ah ngay gàddu léegi ak ki koy gàddu kii gàddoo ak ki koy ki muy gàddu yëpp ku ma ci neex de bu waxtoo jotee da nga ma fay ñu ne d'accord wa taqdimihi dana jëriñ sart jiital aji gàddu ji maanaam ki gàddu ji nga ne ko bu waxtoo jotee ci yow laay jëkk a ñëw kooku wér na ak in maata wala ndeen deena bu fekkee tey masalan mat moon deena da nga may fay mu ne d'accord naa sart boobu dana jëriñ mu jëlee jëriñu sart bi te sart fil wacci ni ki sart borom nga daayal anam mu sart dégg nga de tasdiqa dëggal fil ihdaar ja teewal ga ci kanam tuuti maanaam képp ku gàddu nga daayal anam dagal na nga sart nag ni waa ji ah bu waxtu wa jotee kat bu ma la nee teewal naa na nga ma dëggal bu ma la nee teewal naa waa ji aw rabbi day ne wala borom bor ba mu sart moom itam tasdiqa dëggal fil ihdaar ci ñàkk teewal ga wala borom bor bi ne la ah damaa bëgg nag boo gàddoo ñëw nga daayal anam su waxtu wa jotee bu ma la nee teewaloo ko kat na nga bu ma weddi na nga ma dëggal kooku sart boobu dana jëriñ nga ni wana hoo ñeel na daanin wala bu mustayqi sàkku aji yey ja bu tax li si ci kat lem indi ajali fas dig ba yow mi gàddu nit ki bu la neexee bu waxtoo jotee nga ne borom bor ba demal fayu ji waaja ndax man sama baat dañ waaye ba laa bi tas lienul maal yi waru ko muy sàkku jébbale alal ji ilay jëm ci daanin daanin nag di dem ci kamu gàddu woon ni ko jox ma alal ji ma fay waru ko su tàddete wàcc wa damin fo warlot na ko iniq naaw ndem fayu na ko su fekkee jël nga bor ba ca kan ko gàddu woon di ko yóbbu far mu réer yaa koy fay de yow daanin waaye laaw solo waxuma leen yónneef na ko bii ci moom su fekkee kala ka nga gàddu woon moo la yónnee alal ja nga di ko yóbbu mu réer kooku moom doo ko fa- doo ko warlu ndax kon ñu forcé woo ko waaye bu fekkee yaa ko jëli woon nag moom li mooy li mu njëkk a wax kon bu réeree nga fay nga ne wala si ma war na daani taaxir rabbi yi yeexe borom bor ba al mustira al madmun madi aji ñàkk al mustira wala madi aji womal maanaam dig bi jot na ku ñu gàddu woon borom bor bi ni ko yeexe naa la su boobaa ba tey nga day la wàccagul daanin de in sàkk sa ngeen daanin noppi na bu noppee ba tey nga day lañ ci baatam awlam yolam wala xamul ñu yeexe nañ ko ba tey nga day lañ ci baatam waaye nag in xalafa ngeen giñ na moom aji sàkko jëne anhu naka moom lam yu akkir yéexewul kële leboon bor ba mos ko tan di rotal nga day la kooku fokk mu giñ loolu nag nga day la dooru continuer nga ne wayen an kara ndeen weddina moom daanin dégg nga de ni moo daanin moo weddi kon nag su boobaa ah léegi da nga naan xalafa na giñ ah annahu naka moom moom aji sàkko jën lamit ko sulsulul bor ba wala ci moo tewaa ko ba tey nga day la mu ne wa taaxara ye xet na xari moo aji lebam di caaxi yi ci yeexe daanin maanaam bu fekkee waa ji dafa gàddoo nga ni ko yow yeexe naa la ah su boobaa yeexe nga kamu gàddu woon ñu ne faaw mu ne ilaa an yalifa ndere boo giñ ni yeexe gi ma yeexe aji gàddu ji jubluwuma ci yeexe borom ci ma ci ma lebal kon nag su boobaa sañ ngaa fayu ko nga lebal boo ba tala yàqu na nga daay in fasadi leen yàqu na mu taxamalu lu ñu gàddu la bii ci moom dégg nga de mooy tey boo déggee mu taxamalum bii mooy lebal dërëm ñaari dërëm ma gàddu la ñu ne loolu dagal na kon nga daay la yàqu na aw fasad wala yàqu nga daay la ñu ci lan kanaka da koo gàddu bi jëleen ci mu neexal min xëy rab bi ci ludul borom ba ci ludul borom bor ba li li madine yi ñeel madinam da nga ni waa ji da demal lebi neexal nit mu gàddu la kooku dagalul ndax su waa ji neexalee nit kooko gàddu ko su ko kooko fayalee bor ba su bis bu ko waa ji delloo bor bi mu ko fayaloon lam ko neexaloon riba la dégg nga de ñu kon nag daganul loolu ñu ni wayn damaa ne man mooy donte gàddu aji gàddoom la maanaam dama ni la demal leb ma gàddu la may itam ma leb nga gàddu ma kooku su boobaa daganul ndax kooku dara sëriñ bi nee na ilaaj ilaaj sitraay ndari ci jënd ilaaj sitraay say ndari ci jënd la bay noo maa diggante seen ñoom ñaar su dee tey ñoom ñaar danoo bokk jënd dara kenn ku ne gàddu sa morom dagal na aw bay fii wala nu bokk jaay dara kenn ku ne gàddu sa morom dagal na mu ne taxar bi maa ngi ci lépp seen ñoom ñaar ñoom ñaar ñu bokk leb dara kenn ku ne gàddu moromam ni bu fayul ma fayal ko wér na xàlla fi ci wax dëgg la wér nga ne wayin taadda ndéem li mu na dégg nga de xuma laa un way gàddoonte utu bi en topparet ku lun képp di seeti ci cëram ñu ne faaw mun ilaan yëf pare si ndere boo sàpp na xamaale te ba jëm gàddu lenn seen an baax di fi lenn bu ñenn ñeneen ah kay ñun daanu gàddul sunu morom ñu koy def it ñu gàddoon te nañu kon su boobaa ba tey wér na mu nekk traité bu him la ko toppaloo seen kenn koo dajal def ñoom ñëpp dañoo bokk leb dara kenn ku ne ne gàddu naa ñëpp keneen ne gàddu naa ñëpp keneen ne gàddu naa ñëpp kon it loolu wér na nga ne bu boobaa nag war a ñu àddaloot na al mu addi aji jooxal ja ka nga xam ne moo jooxal bor ba lépp bi xëy mu addaa ci lu dul lu mu jooxal an naf si yi walif boppam bi kulli maa ci lépp loo xam ne alal mulki war na aji daje ja su ma saawaw topp mu yemoo moom ba ñu yemoo kat kon nag tafsira ma ñu nii fay na siré ndeen fa ñu tara ndeen jënd na ci bëtun juróom benn bi sitti mi atin ci juróom benn téeméer juróom benn téeméer juróom benn dañoo leb ci laa ci juróom benn téeméer bil xamaale ci gàddu lente fa laq ya mu daje moom aji jaay ja ahadum kenn ci ñoom axasa mu jàpp ni ci moom ak jamiha mboolem njëkk muy juróom benn téeméer lépp su ma in laqee topp ndem daje na ahadum kenn ci ñoom dégg nga de kookee jooxal axasoo mu jàpp ko bi ñu etin ci téeméer cosaan bi su ma bi ñu etin topp ñaari téeméer ci nga day fa in laqee ndem daje na ahaduma kenn ci ñoom ñaar ñooñu saalisan aji ñetteel axasoo mu jàpp ko di xam si ne ci juróom fukk ci cosaan ko di xam si ak ci juróom set yéen ak juróom ñaar fukk ci nga day fa in laqee ndem daje na saalisu aji ñetteel raadihan aji ñeenteel axasoo mu jàpp ko di xam si ci juróom waxi seen ak ñaar fukk ci cosaan wa bi misliha ak ci kemam ci nga day mu ñaar fukk juróom ci nga day su ma topp bu ñu dajee koo xam ne mooy ko juróomeel dana ko jàpp bis lay asara ci fukk ak ñaar da nga dëj wa nisfin ak nisif ci cosaan wa bi sittatin ak ci juróom benn wa rubin ak rubu ci nga day topp bu ñu dajee ko juróom benneel ñu jàpp ko juróom benn ak rubu ci cosaan léegi nag uma laaw xuramaa mi ngi nii ku jëkk ci jooxal na juróom benn téeméer yi dajee ku ñaareel jàpp ci moom téeméeri cosaan ak ñaari téeméer ci nga day léegi kon moom dese na ñaari téeméer yu ko gars yi ameel moom ku jëkk ndax comme joxal na juróom benn téeméer dajeeg ku jëkk jël ci moom ñetti téeméer ah léegi ñetti téeméer yële mu defe benn ba moo ko war a fay kon defe na ñaar mu jël mu ñaar yooyu nag lay topp gars yi mu dajeeg ku ñetteel jël ci moom juróom fukk cosaan ak juróom ñaar fukk ak juróom ci ngàddaay ñu ne loolu de téeméer ak ñaar fukk ak juróom la mu dajee ku ñeenteel jël ci moom ñaar fukk ak juróom ci cosaan ak ñaar fukk ak juróom ci ngàddaay ñu ne loolu de juróom fukk la fekk téeméer ak ñaar fukk ak juróom muy téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mu dajee ku juróomeel jël ci moom fukk ak ñaar ak genn wàllu cosaan ak juróom benn ak robo fukk ak ñaar ak genn wàll bu fekkee juróom benn ak robo muy fukk ak juróom ñett ak as lëf bu ko defee mu jo- mu fekki mu jërëjëf ku juróom benn jël ci moom juróom benn ak robo juróom benn ak robo bu fekk juróom benn ak robo bu bële dégg nga de muy fukk ak ñaar ak genn wàll ak fukk ak ñaar ak genn wàll muy ñaar fukk ak juróom benn ak robo bu bële juróom benn ak robo ak juróom benn robo fukk ak ñaar ak genn wàll fekk ci fukk ak ñaar ak genn wàll bii muy ñaar fukk ak juróom ak téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ba mu jàppoon ci gaa yi ñaar téeméeram mat na muy benn soor ku ñaareel jóg ni man nag joxe naa téeméeri cosaan ak ñaari téeméeri ngàddaay kon sama ñaari téeméeri ci gaañi dajeeg ku ñetteel jàpp ci moom moom itam juróom fukk cosaan ak juróom ñaar fukk ak juróom ci ngàddaay ñu ne loolu de téeméer la ak ñaar fukk ak juróom dajeeg dajeeg ku ñeenteel jàpp ci moom ñaar fukk ak juróom cosaan ak ñaar fukk ak juróom ci ngàddaay ñu ne loolu de juróom fukk la fekk téeméer ak ñaar fukk ak juróom muy téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom dajeeg ku juróom meel jàpp ci moom fukk ak ñaar ak genn wàll ci cosaan ak juróom benn ak rubu muy fukk ak juróom ñett ak as lëf dajeeg ku juróom benneel jàpp ci moom juróom benn ak rubu mu fekk ci juróom benn ak rubu bee muy fukk ak ñaar ak genn wàll ak fukk ak ñaar ak genn wàll yi muy ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ak téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom muy ñaar téeméer kon ku ñaareel matal na ku ñetteel jóg ni man nag sama juróom fukki bi jox naa ko jëkk benn yoon jox naa ko ñaareel benn yoon ñu ne ko loolu de téeméer la mu ne waaye sama juróom ñaar fukk ak juróom bi jox naa ko jëkk benn yoon jox naa ko ku ñaareel benn yoon ñu ne ko juróom ñaar fukk ak juróom day ñaari yoon téeméer ak juróom fukk la mu ne kon sama téeméer ak juróom fukk a ngi ci gaa yi dajeeg ku ñeenteel ñu ne ko sa ñaar fukk ak juróomu cosaan bi da nga ma ko jox ñaari yoon muy juróom fukk mu ne ko sa ñaar fukk ak juróomu ngàddaay bi da nga ma ko jox ñaari yoon dégg nga de muy juróom fukk muy téeméer mu dajeeg ku juróomeel ni ko sa fukk ak ñaar ak genn wàll bi da nga ma ko jox ñaari yoon muy ñaar fukk ak juróom fekk ci téeméer muy téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne ko sa juróom benn robo bi da nga ma ko jox ñaari yoon juróom benn ak robo ñaari yoon fukk ak ñaar ak genn wàll mu dajeeg ku juróom benn yàlla daje ni ko sa fukk juróom benn ak robo bii da nga ma ko jox ñaari yoon man itam muy fukk ak ñaar ak genn wàll fekkee fukk ak ñaar ak genn wàll bële ak ñaar fukk ak juróom bee dégg nga de kon nag fukk ak ñaar ak genn wàll fukk ak ñaar ak genn wàll soo ko boolee ñaar fukk ak juróom la fekk ñaar fukk ak juróom muy juróom fukk téeméeram ak juróom fukk mat dégg nga ku ñeenteel daal di jóg ni man nag sama ñaar fukk ak juróom bii jox naa ko ku njëkk benn yoon jox naa ko ku ñaareel benn yoon ñu ne loolu de juróom fukk la mu ne jox naa ko ku ñetteel mi ñaari yoon ñu ne ko loolu juróom fukk la muy téeméer mu ne kon saa téeméer mat na ci cosaan waaye sama ñaar fukk ak juróomu ngàddaay bi jox naa ko ku njëkk benn yoon jox naa ko ku ñaareel benn yoon ñu ne loolu de juróom fukk la mu ne jox naa ko ku ñetteel ñaari yoon ñu ne ko loolu juróom fukk la mu ne kon sama téeméer dañ ci gaa yi daal di dajeeg ku juróomeel ñu ko sa fukk ak ñaar ak genn wàll bi da nga ma ko jox ñeenti yoon ñu ne fukk ak ñaar ak genn wàll ñeenti yoon te juróom fukk la mu ne ko sa juróom benn robo bi da nga ma ko jox ñeenti yoon ñu ne ko loolu it ñaar fukk ak juróom lay doon fekk ci juróom fukk muy juróom ñaar fukk ak juróom mu dajee ko juróom benneel ni ko sa juróom benn ak robo bi da nga ma ko jox ñeenti yoon ñu ne ko loolu it ñaar fukk ak juróom la kon ñaar fukk ak juróom bu fekkee juróom ñaar fukk ak juróom téeméeram mat na waaw waaw sooru juróomi juróom fukk beeg ñaar ak genn wàll ni may itam ma jóg sama fukk ak ñaar ak genn wàll bi jox naa ko jëkk benn yoon jox naa ko ku ñaareel benn yoon ñu ne ko loolu day ñaar fukk ak juróom la mu ne jox naa ko ku ñetteel ñaari yoon ñu ne ko loolu it ñaar fukk ak juróom la mu ne waaye jox naa ko ku ñeenteel ñeenti yoon ñu ne ko loolu it juróom fukk la ñaar fukk ak juróom ak ñaar fukk ak juróom juróom fukk ak beneen juróom fukk muy téeméer mu ne kon sama téeméer cosaan mat na ñu ne ko d'accord mu ne waaye sama juróom benn ak rubu bi jox naa ko ku jëkk benn yoon ñu ne waaw mu ne jox naa ko ku ñaareel benn yoon ñu ne ñaar ñu ne ko ñaar yi de ci juróom benn ak rubu fukk ak ñaar la ak jenn wàll mu ne waaye jox naa ko ku ñetteel moom itam ñaari yoon ñu ne ko loolu it fukk ak ñaar ak genn wàll fukk ak ñaar ak genn wàll fekk ci fukk ak ñaar ak genn wàll muy ñaar fukk ak juróom mu ne waaye jox naa ko ku ñeenteel ci ñeenti yoon ñu ne ko ñeenti yoon yooyu it ñaar fukk ak juróom la ñaar fukk ak juróom fekk ñaar fukk ak juróom lu mu mu ne juróom fukk mu ne kon sama juróom fukk a ngi ci gaañu ñu ne ko ah kenn képp a des de mu dajee ku juróom benneel ci ni ko yow nag yaa ma ameel juróom fukk sa juróom benn ak rubu bi nag da nga ma ko jox juróom ñetti yoon borom borom juróom benn ak rubu bi jox ko ko juróom ñetti yoon muy juróom fukk mu de mu dem yoon borom juróom benn rubu bi nag moo ci def mu ne xaaral man ma seet ndax man nii kat sama juróom benn rubu bi tuut la waaye nag ah mbaa ëppalu ma ñu ne ko deet yow ko ëppaloo mu ne waaw xaar leen jox naa ko ku njëkk benn yoon jox naa ko ku ñaareel benn yoon jox naa ko ku ñetteel ñaari yoon jox naa ko ku ñeenteel ñeenti yoon jox naa ko ku juróomeel juróom-ñetti yoon kon nag sama juróom-benn ak rubu bi joxe naa ko fukki yoon ak juróom-benn ñu ne ko juróom-benn ak rubu boo ko joxee fukki yoon ak juróom-benn mooy di téeméer cap yow seen ameelu la dara kon nag dama laa uxura maa ngoog jërëjëf Cheikh Khalil waaye jërëjëf sayxinaa wa sayidina Moussa Ndiaye radiallahu taala anhu sëriñ bi nee na wax jam yàlla laayal jihu di dellu bi maa ci lan xam ne yokk soo dina ko jago ay dan ba tey isaa kaane leen nekk na alxaqu jàq ji alaxir ñu waral ko dul ñoom te su fekkoon ne àq jooju ñu waroon a gaddu dañ koo gàddul ñeneen kon kenn ku nekk la nga ca war a jagoo loola it doo ca dellu comme nit ñi awalan sa njëlbeen waale it wax jooju la sukkandikoo lak sob la gën a bari ci borom xam-xam yi mooy muhtamatit am moom kay kenn ku ne la nga war a jagoo da nga ca dellu su fekkee àq ja dafa war ñeneen taawi laa ni am na ñaar jëm maanaam mooy bu fekkoon ni tey juróom benn ñooñu dañoo gàddu ñeneen ñu dul ñoom wasaawir na nga daay bi loo ci nga daayal anam dégg nga de te mooy waa ji nga ni bu waxtu wa jotee dinaa ko indi rek boo wér na nga daay li saw ji li saw ji ñeel jëkkër ba li saw ji ñeel la jëkkër rek ngay wax radduhoo delloo nga daay nga daayal anam min saw jëti ci jabaram sa jabar bu gàddoo ni nga daayal anam bu la neexee nga delloo ko wa bari adda ñett na moom aji gàddu nga daayal anam bi tes li nihi ci jébbale ku ñu gàddu ko dégg nga de loxoo ñeel mag moonu loxoo ma koy indi ci ñun doon ci kaso ba la ko jébbale bu ko yóbbu woon ba bu ko jébbalee ni ko ma ngi nii ci kaso bi it dañ na aw bi tas lii la ci jébbaleem nafsu foo boppam ka mu gàddu woon ñëw jébbale boppam dañ nga in amar woon dem digal na ko bii ci jébbale ka in xaalan dem ay na alxaqu aq ja wa dana dañit moom aji gàddu nga daayil anam su jébbalee ka mu gàddu woon bi xëy na li ci ukk mi ci lu jotaayu atte ba bu fekkee tey même dafa dajeeg yow rek ca marché ba daal lay jébbal ka nga xam ne moom la gàddu woon nga daayil anam dañ na ah il nañ gis peut-être dem sotteekul nag jë jotaayu àtte ba waaye su fekkee waajo da ko doon da nga ma koy indi ci kanamu xaakim ah kon nag du mën a dañ fee taxawal ko ci kanamu xaakim nga ni war dana dañ aji gàddu nga daayal anam ba tey ci jébbaleen bi xëy di bala di fu dul dëkkam maanaam da ngaa daje ka nga gàddu woon nga daayal anam nga daal di koy jébbal borom ba ba feneen fu dul dëkk ba kon it wér na in kaane dem nekk na di ci dëkk ba mu ko jébbalee xaakimun xaakim walaw at yi man donte nekkoon na ba mu la donte ku ñàkk la woon it boo ko jébbalee rek dañ nga wa ilaa ndem amee aji gàddu dañul ci anam yi jiitu woon kon nag su boobaa oxri ma fay loof ko de te mooy mën ko jébbale ka mu gàddu woon ah kon nag mu fay moom ko ka gàddu woon ba da xatu ci kalaw mi gën a woy fu mu ñu ndiko ten xaru ban den jegeñ na xëy batu xëy mi faddu aji leb ja kan yow mi ngi toll ci bis nga ne nag bu fekkee nag kañu gàddu woon dafa faddu lu sori ba aakim atte ni da da nga ko fay ah walaay fudro alxul mu fay ga bi ihdaari ci teewalam même boo ko indi waatoon da ngay fay suñu ukki ma neem atteef na bii ci fay ga ba noppi suñu atteen da nga ko fay ba noppi nga door ko indi da ngay fay boo boo ko fayee ba noppi rek nga door laa delloo waaye laayin asbatu waxu ma neem taxaw na moom aji gàddu jo xudmu koo ñàkk ku ñu gàddu ko ci xëy da ci ci kàddu ci fàddoon ci kanam tuuti su fekkee tey saxal nga ak ñàkkam ni fa mu nekk amul dara te gàddaayal anam dong la woon doo fay aw moto wala dem ci xëy ba ci ci fàddoom doo fay wala di xëy di bala di yi donte nga xam ni ci fudul réewam la nga xam ne donte nga xam ni fa mu fàddu du réew ma it waaye saxal nga ñàkkam kon su boobaa sëriñ bi nee na doo fay nga ne war a jaxa delloot nag moom aji gàddu nga daayal anam bii ca fay ga comme da nga koo gàddu woon mu ñàkk nga fayal ko ah da nga dellu te la nga xam ne moom nga ko fayal nga ne wa dana dana wa dana warlu dégg nga de wa bi tala bi dégg nga de nga ne wa wér na ngàddaay bi tala bi ci sa mooy dinaa ko sàkku léegi waa ji da nga ne dinaa ko gàddu rek waxtu wa jotee ma sàkku ko wér na bayin ci xisaas doon ci xisaas la woon boo xam ne tey waa ji mbirum xisaas la mu bëgg a dem nga ni mën naa koo gàddu de waaye dinaa ko sàkku wér na mu ne ko am naa man amidul aji gàddu laa bi tala bi ci sàkkoom wér na ay tratat wala mu sàkku na fiyal maa ne dàqu alal ah dinaa ko gàddu de waaye du ma fay de wér na aw xaala wala mu wax laa manu du ma warlu ilaa wactu woon dara jëmm ji jëmm ji daal laa warlu wér na waaye wataala boo sàkkoot na ko nag su waxtu woo jotee dinaa ci bépp barab boo xam ne yàquwaa dana dëgër ànd ci moom bépp barab boo xam ne yaakaar nga ni ma nga fa kon su boobaa da nga ko fa sàkk nga ni waxala fa dinit na moom aji gàddu jooju mooy diñ ni maa xasara gàttandiwul dégg nga de su fekkee waxtu woo jot na nga war ko gisoo ko da nga ne ah gàttandiwuma de te da nga ji waxaali ma fayat na moom aji gàddu jooju nga daayal anam dégg nga de maanaam nga daayal salab sax ngay wax yéen farata leen tàggal na nga xam ne waaja waxtu wa dafa jot mu dem yoonam kon su boobaa da ngay fay aw fara boo wala mu dawloo ko dégg nga de ni ko dawal kon su boobaa yaa ngi fay ndax loolu complot la nga ne woo xiba def na ko bëggal it nag yow mi ko dawloo te da nga fay nga ne woo umee la yenees na nga daay xalal maa li ci alal ci kanam tuuti si te waxi aji gàddu ji ci mut laxi ana ci lu ñu boyali ana man xamidul aji gàddu laa maanaam aji gàddu ji bu ne ana man amilul aji gàddu laa ñu ngeen ko alal maali ci alal wa sahimun aji warlu laa ko ñu ngeen ko alal maali ci alal wa asinun aji digal laa ko ñu ngeen ko alal maali ci alal ci kanam tuuti wa xabilun dégg nga de aji gàddu laa ko ba tey ñu ngeen ko alal maali ci alal wa hindi yi nekk na fi man ñu ngeen ko alal maali ci alal wa ilaya jëm na ci man ñu ngeen ko alal maali ci alal wa sibi aw yu ko nii dégg nga de te alal la dañ ci wax dëgg la nangu sa ilmi mu jël ko ci wóote ba wala ashari ci mooy wax dëgg la seen sa ilmi mu jël ko ci wóote ah sëriñ bi nee na waaye laa in laa in xalafaa ko mu ne wuute nañu ñoom ñaar aha da ko ni da nga maa gàddu woon ngàddaayal anam mu ne ko da nga koo gàddu woon ngàddaayal eh, alal kon su boobaa sëriñ bi nee na kenn du ko yem ci alal wala ne jib warul wakiilul wakiil li ko soomati dégg nga de ñeel ko loo di dax waa ci lu ñu raflee li woote waa ji dafa ne diw aneel na ma rek ah kim ñu aneel na ma bëgg a dem mu ne ko da ngay indi wakiil ku la ko loo déedéet ci kanam tuuti wala kasi lulu jégéen ajo warlu bi loo isi anam ga di dax waa ci lu ñu raflee li woote maanaam da ngaa woote diw aneel na ma rek ah wëlbatiku mu bëgg a dem nga ne ko da ngay indi ku la gàddu nga dayal anam déedéet ilaa bi saay bi nga ne boo da ngaa taxawal benn seede tudd ni am nga seedem ñaareel kon nag su boobaa dana indi ku ko gàddu nga dayal anam nga ne wa ini daa ndeem wooyeen bayi na tan ay seede di ko sooken ci lu demee ne ci marché ba tey da ngaa fekk benn waaye nga ne anel na ma ñu ne ana say seede nga ne mi ngi fii ci marché bi aw ko foo nag taxawal ko xaaji xaaji yi indoo ko moom ni ko nag bala ngaa da ngay fay baabul sarikatu bokkaale is ñun mooy ndigal su tasarukun ci soppandiku lahuma bu ñeel na leen ñoom ñaar maam si si ma ànd ak def soppandiku jëmm seen ñoom ñaar nga xam ne ñoom ñaar ñëpp ñooy liggéey way ne maa tafi mu xamal ne que dana wér bokkaale min ali tawkil ci ñooñ wakkil bu ñooñ ki wér mu wakkil dégg nga de kookam mooy moom mooy bokkaale kon nag mu daal di génnee ku mel ne gone ak ñu demee noonu wa tawakkuli ak ku wér ñu wakkil ko wala si mat war na bokkaale bi maa ci lépp loo xam yëgul dina mu teg téléphone fan ci baax te istrek naa nekk bokkaale lañu nga ne bokkaale nag maa sa yëkkoonu nga ne yëkkoon daa nekk di saa bay nit ñaari wurus dégg nga de aw wari xëy ni wala ñaari xaalis di sapaka yoo xam ne dëppoo nañu sa foo maa soppandiku seen ñoom ñaar maanaam da ngaa andi dinaar ma andi ay dinaar te ñoo bokk weccat wala nga andi xaalis ma andi xaalis te ñoo bokk weccat loolu wér na boo wér na bokkaale bi himaa ci wurus ak xaalis min himaa mu tukkee ci ñoom ñaar da ngaa andi wurus andi xaalis ma andi wurus andi xaalis nga bokkaale wér na boo wér na bokkaale bi àddin ci mar bi ay nim ci kee te mooy wurus ak xaalis boo bi àddin kenn ka andi marchandise wér na boo bi ar boo wér na bokkaale bi àddin ñaari marchandise mutlaxan moo xam ñoo bokk xeet wala bokkuñu xeet da ngaa andi marchandise ma andi marchandise bu ñu bokkee xeet ak bu ñu bokkul xeet yëpp baax na nañ tolloo xayma rek wakkulum tépp nag dañ koy met nekk na ci xaymaam yow ma ujjëre gis bañ ko teewalee maanaam marchandise mu nekk dañ koy xool ci xaymaam kera bañ ko teewalee waaye laa faatoo xuma su fekkee faat na dégg nga de ah bis ba mu faate kenn du ko seet in faat ne wér na bokkaale ga bokkaale gi na wér aha waaye bokkaale gu yàqu moom su boobaa kenn dégg nga de ab askan dina ñëw ci kanam tuuti ba nga déggee nag wér na bokkaale seen xalataan jaxase nañu ñoom ñaar ñaar yi seen ñaar yi yéeñu andi nañ ko jaxase wala hukkuman donte jaxase ak attel wa wa ilaa ndem nga xam ne jaxase wuñu nag fa taalifu aji sànku la ja min rabbi tukkee na ci boromam maanaam musibam boromam su fekkee da ngaa andi sa yëf ma andi sama yëf ah ñu bañ koo jaxase ku sànkule yaay ñàkk nga ne woo maa la nga xam ne ibtee jëndeef na ko bi xëy di hii ca kadul aji sànkule ja kon nag fa bay no maa mu nekk seen diggante bu ko defee nag yow mi dem jëndi te sànkule woo man mi sànkule yow sa li nga jënd noo koy bokk nga ne wa alal mutlif war na aji sànkule ja nit su sama ni genn wàllu njëgga waaw waaw su boobaa ma jox la sa genn wàllu njëg lu bokk mu ne waal jaam yàlla ba nga déggee ah dan moom marchandise ma ñu jënd dana nekk seen diggante ah ilaa an yaxla ma xanaa ndare boo xam ne moom ka sankulewul bi talafi ci sanku ga kon fa lahoo ñeel na ko bona siisam waaye waale war na ko ak pertam aw wala moom kay ka muccile la mu jënd dana nekk seen diggante mutlaxan moo xam xamoon na ni kee sankule na wala xamu ko yëpp ñoo koy bokk te du am nañ ci deng deng ci kanam nga ne bañ ci am nga ne ilaa nga defee ndare boo wooye nag ndax sa jàpp loo ñeel boppam waaye su fekkee dafa ne ah man nag lii ma jënd ci sama yëf saa bopp tax ma jënd ko kon nag su boobaa moo koy wéetoo bokkaale ba dootu ca bokk wala xaaba donte fàddu woon na naq du aji maa teew kenn ñoom ñaar lér na bokkaale ñaari kee donte sa kee nekku fi ni ki man sama xaalis teew na waaye yow sa xaalis ma nga ca marché ba kon du tee wér na ci sartu nag illam yëpp ndem soriwul ak fàddoom wala mu yëpp a jël waaye boobu baa nag déeful yaxantu lifu dóor yi ba ci teewam nag bala maa yaxantu ci lii ma teg da ngay dem ba indi ba noppi waaye laa di saxabin du wér bokkaale ci wurus te kenn ka wa bi warxi ak ci xaalis te ka ca def ndax loolu day day boole bokkaale ak sarf moo tax da ngay boo indee wurus ma andi xaalis ñu ngi nañ bokkaale loolu wérul ndax ku boobaa saraf ak bokkaale dañuy daje ndax kenn ku ne sa yëf dafa war ñu soppi ko nga ne ak wa bi ta amee ñu ak ci ñaari ñam nga andi ñam ma andi ñam kooku bokkaale ga wéru wala wi tafakaa doon dëppoo nañu ñoom ñaar dégg nga de ndax kooku la koy tax a araam mooy xam nga jaay ñam ak ñam lay doon sëriñ bi nee na su may at lakaa topp ndeem boyal nañu ñoom ñaar te solu fa soppandiku ga fa mu faawat bokkaale mu faawade la buñ ñee kenn ku nekk da nga ni sa morom lu la neex soppandikul kon nag muy bokkaale mu faawale ci kanam tuuti wayen dina wen doon ci benn xeet la it fa mu waatul bokkaale mu faawale la mu ne walaa yu sudu walaa yu sudaa du yàq bokkaale nag infradu adima wéetu kenn ci ñoom ñaar bi tayin ci lëf tey danoo bokkaale yow nga teg bitig bi kenn ku ne teg alalam nga teg say genn taabal am loo cay def yow looy jaay yow ci sa bopp du ko yàq waaye wala hoo ñeel na kooku da nga de aji wéetu jooju nag su boobaa am yet wala hoo ñeel na kenn ci ñaari way bokkaale ngay wax an yetta bara xamu coobarewu duñu talafa ndeen miin lu la waaw waaw bii ca coobarewu ga maanaam yëkkati dara ci alal ji lu ndaw jox nit ngir bëgg maanaam waa ji miin nekk seen kiriyaan wér na aw xafa wala wayef loola ki aar ci alal ci nit ki abale jumtukaay wér na wala fi kisatin ak jang ay tojit moom itam da nga de maanaam sañ na ko maanaam tojit yi mooy mburu yooyu demee noonu yi ci farajax ci bitig bi nga jël ko may nit ngir meen lu kooku moom itam dara nekku ci wayu ida ak bu mu yóbbantee sañ na ko wayu faawida da nga de yu xaarida ak ba mu leblante maanaam moom itam sañ na ko kenn wayu yoo ak ba mu dénkaane ci alali bokkaale ji sañ na ko liwu sërin ngeen ngànt maanaam da nga dafa am da place bi dafa am ngànt mën ngaa jël ci alal bokkaale ji dem dénkaane wa ilaa ndeem ngànt taxul na nga dem dénkaane ci su réeree dami na mu warlu ko wayu taarik ak ba mu bokkaale fu mooy ni ci lu ñu ràññee mën ngaa jël ci alali bokkaale ji dem bokkaale fee keneen dara ci dara loo xam ne loola lu ñu ràññee la nga ne wa yàqi la wa yuqi la ak ba mu xàcceet yow kenn ci ñaareel bokkaale yi sañ na jëndaat lu ñu jaayoon ci alali bokkaale ji mu jëndaat ko ca njëgg wa yooli ak bu mu méngalee maanaam mën naa jënd dara ci alali bokkaale ji méngale ko keneen wa yàq bala ak bu mu nangoot almahi balu ayib kenn ci ñaareel bokkaale yi sañ na suñu jaayee dara mu am ayib bu ko waaja delloo ci mu nangu ko wa in abaa donte bañoon na alaxaru morom ma wa yuqi la ak bu mu tuddal bi day ci bor kenn ci ñaari way bokkaale yi sañ na nit diw amee nañ ko nangam waaye mu tuddal li man ñeen koo xam ne laay taamu defu ko tuumaal alay ci moom wa yabiha ak bu mu jaayee bi day ci bor mën naa leble waaye laa sira waxuma jënd bii ci bor jënd ci bor moom dagañu mu ne kitaabati ni ki jotoo moom itam kenn ci ñoom ñaar dagañu ngay jotoo jàmb bokk al mu faabali ci loolu sama morom di la ko digal wa yëpp kenn ak goreel ala maalim ci alal kenn ci ñoom sañu ko goreel ab jaam ci kaw alal ci lu dul ndigalal bokkaale ba waaye suñu ak ndigal li ab di ñeel jaam ci jaat ci yaxant maanaam tey jaam bu bokk ci alal mu faawale ci kenn sañu ko cay digal muy yaxant ci lu dul sa morom d'accord aw mu faawale ci wala ngay bokkaale waat geneen bokkaale ak mu faawale te bi ci alal mu faawale bi ngeen bokk di ci bokkaale geneen bokkaale mu faawale kenn sañu ko ci lu may sa ndigalal morom wax boobu yem foofu nga ne wasabale wéetoot na ay xiju xiraal ay jàpp ji xiraal ci kenn ci ñoom ñaar dana wéetoot bi di ci toll ba ci kanam tuuti war ko si ak sàtt yow maag yow danoo bokkaale nga wal bëti ko jël alal yi jàmbur ci xiraal loo bona ci su yaa moom loo perte it yow yow lay war wa mu sëyun aji ab boobu dégg nga de wa mu sëyun daaba ci aji ab daaba maanaam dem di ca sëf bilaay sin si lu dul ndigal la morom ma dana warlu bi nit ca tono ja wala ko siri ak perte waaye ndi sirkatin donte daf ko abboon ngir alali bokkaale ji ah waaw waaye kon bu fekkee da dara da caa yàqu dana ko warlu bi nit ca tono ja wala ko siri ak perte ja wa mu tëjoon ak aji yaxantu di wajeetin ci ndénkaane tey ku ñu dénk xaalis ci ñaari way bokkaale yi mu dem di ca yaxantu dana wéetoo bi nit ca tono ja wal ko siri ak perte dégg nga de bu ca perte mooy ñàkk bu ca tono woo moom moom ilaa am yaxle mandare boo xam ne serikoo bokkaaleem ba ni moom kat mi ngi yaxantu ci alal ju ñu ko dénk mu noppi kon nag su boobaa lu ñu bénéfice ñoo bokk waaye lu ñu perte ñoom ñaar a koy fay mu ngoog ilaa nga la ma serikoo bi taji ci cërgateem su la déet ci ndénkaane su fekkee tey waa ji xam ne ne yow kan ndénkaan bi waroo ci woon a commerce ngay nga di ci commerce ci biir alal ji mu ni cel lu lu ngeen am bénéfice yéen a bokk waaye lu ngeen perte yéenay fay mu ne bokkulum képp la wakilul wakil la kon nag ca morom ma ñaari way bokkaale fa saabat loolu yoroddu la ñuy delloo ala ajrin waral aji teew lam yett wala koo xam ne méngoowul woon pas-pas ba tey soo jëndee ci bitig bi soo demee dikk fekk fi keneen ku bokk nag ci la jaayoon ah su boobaa yow nee na mën nga ko ko delloo kalxaay bi naka nga koy delloo ko fàdd dégg nga de in baw da kalxaay bi nekk aji faddu in baw da idem sori na xëy ba toog faddoom maanaam su fekkee ci la jaayoon dafa faddu te faddu ga sori nga jox ko ki ci ne wa ilaa ndeem nga xam ne faddoom soriwul nag untu si la mu ñu ndikoo ko ni ki dalaa jaay dara nga woote ni am na ay ñun la ah lii ku fi de bu fekkee faddu gu sori la nga delloo ko ki ci ne suuf soriwul nag nga xaar ba mu ñëw nga ne wari utono war utul ak perte ga dégg nga de ci alal xiraal alal mu faawada bi xadri maa leen nekkal ci kenn ñaari alal ya kenn ku nekk na sa alal toll bu perte ga ñëwee noonu ngay am waaye bu bénéfice ba ñëwee noonu ngay am wata su dina yàqu da ngay wax bokkaale bi sàtt sa faaw sa ëppalante ca tono ja maanaam tey ëppalante ci tono mooy ñu ne bunu bu ñu seddoo bénéfice bi man damay am ñaari xaaj yow nga am benn kooku daganu wala ku ñu ñëw na képp su boobaa ajiru amali yoolu jëfam lil axari ñool morom ma looy misaalam tey waa ji dafa indi ñaari junni nga indi junni kon léegi moo la ëppale léegi ngeen bokk yemoo liggéey xam nga kon waru ni ngeen ëppalante ci rastumaal bi noonu ngeen war na ëppalante ci liggéey su ngeen bokkoo yemoo liggéey nag ba séddoo ko jot ngeen séddoo tolloo bénéfice képp kon léegi yow da nga ko delloo sudd su jëfam moom mi amoon junni sudd su jëfam nga koy delloo yow borom ñaari junni yi yow itam mu delloo la su sudd su tono kenn ku ne noonu la ñuy delloo morom wala hoo ñeel na kenn ci ñaari way bokkaale tabaruhu coobarewu kenn ci ñaari way bokkaale sañ naa coobarewu ba ak di gën a pas-pas ba boo déggee coobarewu mooy ngeen waxante woon ab xaaj nga ne ko dañuy séddoo bénéfice ci nangam mu d'accord nga dem ba nga xam ne séddoo ngeen ba noppi nga yëkkatiwaat nag loo xam ne yaa ko ko jox ni ko am wa salafu kenn ci ñoom mën naa leble lebal morom ma dégg nga de ba dalaq di gën a pas-pas bu la neexee ngeen pas alal xiraaj ba noppi ngeen ngeen pas-pas ba noppi nga lebal ko wala hibatu ak maye bu la neexee ba dalaq di gën a pas ba kenn ci ñoom mën naa may morom ma ci alal ji su gën a gën a pas-pas ba léegi alal xiraaj bi waa ji dafa demoon dikk ne alal xiraaj ji am na lu ci sànk wala lu perte morom mi ni ko da ngay fen wal kaw lu wax ja li mu dañee tale ci ñel na aji woote ja sànk wal ko si ak perte te ni dafa réer ci àll bi wala dafa perte moom la ñuy dëggal da nga de nga ni woo wax ja da nga de woo wax ja it li aaki si laaye seen ñel na aji jàpp lu yell loxoo ñeel ko tey bu fekkee kenn ci ñoom dafa jënd ci alal ji dara lu yell morom ma ni ko déedéet kooka kay jënd lu yàlla moo koy moo moo- moom la ñuy dëggal nga ni wa wax jëyit li mu de nit si ñeel na aji woote ji misif nga xam ni waa ji dañu li nu bokkaale kat nun ñaar kenn ku ne genn wàll la def kenn ki ni ko déedéet maa def ñaari xaj nga def sulus ba tey kooka ko woote misif la ñuy dëggal waxuma la yéen yëpp na ko àll yi ci misif te tinaa ci maa ci xëccoo seen ñoom ñaar bu ñu xëccoo yéen ko ci misif mu ni wa wax jëyit li li mu siraaki ñeel na ko bu wooyee bokkaale ga fii maa ca la nga xam ne biyee di aji maa nekk na ci loxol kenn ci ñoom ñaar waa ji dafa jëndub oto nga ni ko oto bii kat ci alali bokkaale ji la mu ni déedéet maa ko moom yow mi ni ci alali bokkaale ji la ñuy dëggal ilaali bay nit ci ay seede ala kay sii ci yuy mel ni ki donam su fekkee nag ay seede bu ñoo taxaw ni moo ko doon ci bàyyam kon ñu ni ko yaa ko moom dal ji nga ko jënde mu ni déedéet ah oto bi maa ko moom yow mi ni ci alali bokkaale ji yow la ñuy dëggal
andi pan bi yëpp yëpp andi rek pan bi yëpp waaw alaaka it fii ci lu demee ni ci donam lañ waxoon wayin xaalat donte waxoon na seede ya ndaa la num xamunu taqaddumoo jiitub dona bi wala moo mujj alhaa walis laxaa ñal bokkaale ga kon it su boobaa da nga naan comme am na seede yu ni moo ko donn rek su boobaa moom la ñuy dëggal in si ne ndeem seede dégg nga de in si ne ndeem seedeef na bi mu faa ci mu faa dëgga dégg nga de wala lam yëf at doon te seedeeful bi nga xiraar ci tudd bi haa ci maanaam mu faa wa dëgg alal na say ci wax jëgg na wér bu fekkee daal waa ji li nga xam ne waa ji da ko ni ci alali bokkaale ji la bokk mu ni ko bokk ci ah, ay seede am nañ nee nañ ko moo ko doon kon su boobaa la seede ya wax dañuy jëfandikoo alal la say ci wax di gën a wér nga ne ma wax ji it li mu ximi bay nitin ñeel na aji taxawal ay seede baax si meetin ci jàpp téeméer ba mu ne ànnaxaa naka moom téeméer ba baaxeetul aji des la maanaam tey yow da ngaa jël ci alali bokkaale ji téeméer woote ne jëloo si naa ko sa morom ni la déedéet andeegoo ko ah kon nag kay taxawal ay dégg nga de kañ la delloo si ko la ñuy dëggal waaw waaw in affaire ndem seer la wala bee ci moom indil ak ci fa jàpp ga ndem ba nga koy jël nag ne wutoon na ay seede aw asot wala gàtt almudatu diir ba kon it su boobaa dégg nga de boo nee delloo si naa ko mun na delloo si woo ko moom la ñuy dëggal mu delloo na leen si maanaam ci ni joxee goo ko la ñuy dëggal kat ak ci sadaaxi ni ki jëm kenn an wulif ko te andoon ci la ko minal mu faawara ci mi ngi bokk ci alali mu faawara ci tey sa bokkaale def laa joxeel cam ñu la ci alal ma faawara jëte andeegoo ko nga ne ko ah kay delloo si waat naa moom moom mën a ñu leen andeegoo ko moom la ñuy dëggal ah ilaa an yottoon dara boo yàgg na su fekkee nag ba mu la ko joxee la yàgg na nga woote ne ko delloo si waat naa ko ci alali bokkaale ji kon des na la dëggal ka sanatu yi toll ci at wa ilaa bi bay nitam ak nga la ciy seede yu alaake si jul dana nitik donam boo ko nee can gi gi nga li ma cane sama jabar maa ko doon ci sama baay mu ñu la déedéet ci alali ma faawara ji la tukkee kon it su boobaa yow moom la ñuy dëggal wayen xaal doonte waxoon na seede sa laa na na mënu xamunu dégg nga de dono ba ak bokkaale ga lu jiitu waaye daal seede nañ ni doon nga ci sa baay nangam te yow nee nga loolam moom nga cane kon yow la ñuy dëggal way naqare dem tudd na waaye dul kenn ñaari way bokkaale ba da tafarul gannaaw teqalu ko amatul wala gannaaw dee ni amee nanu diw nangam foofu moom moom mi ku tudd kat saa yi dum seede la ca te kon ba tax na fi xëy na si di ci dul cëram moom cëram moom dana ko fay waaye kam bokkaale la nit bu bu fekkee ni kamu nit ameel nañ ko nangam diñ na rek kam bokkaale dana ko joxit wàllam kon moom cëram moom lu wér la wax na ko ba noppi ndax moo ne ameel nanu diw nangam sëriñ bi nee na woon xeet wacceef na nafaxatumaa dund seen ñoom ñaar ñaari way bokkaale la ñuy dunde buñ ko limaale wakki suutma ak ko daay seen ñoom ñaar duñ ko limaale way bi bala dañ donte ci ñaari réew la mu xali fay séri ji di way wute marché duñ ko limaale kay yaari maa ni ki njaboot seen ñoom ñaar maanaam buñ duñ ko limaale intaxaara baan den jege nañ si nañu ñaari njaboot yi maanaam kenn ku nekk yor benn jabar ak benn doom ñoom ñu bokk di di jaay di leen jox dépense su boobaa loolu dañ koy wacc bu waxtu wi jotee rek ñu séddoo wa ilaa ndem nga xam ne nag dégg nga de dama ne in jegeñante wuñ wa ilaa ndéem jegeñante wuñ ne ko kenn ka dafa am njaboot ka ca des amul dara kon xasabaa ñu lim ko kon nag ka am njaboot la muy dund dañ koy limaale ci wàllam te dafa daal di ajimaa ni ki wétu kenn wa ilaa ndéem dama doon jege nañu kon wa ilaa ndéem jege nañu xasabaa ñu limaale ko ñoom ñaar ñaari njaboot yi jege wuñu nga xam ne kee dafa am njaboot bu bari kee am njaboot bu néew loolu ngay wax kon bu boobaa ñu lim ko kenn ku ne na sa njaboot toll te dafa daal di ajimaa ni ki wétu kenn ñoom ñaar bii ci njaboot kon ba tey ñu ñu limaale wàllam te la muy la muy dundee ci njabootam dañ koy limaale wax boobu yam foofu way nit fran deen jënd na jaaree seen ab jëdeer li na siy ñeel boppam ci alali bokkaale bi falil aaxiri ñeel na morom ma radduwaa ak delloom ilaali wat inde da ko jëndoon ngir laal bis nii ci ndigalam yow da ngaa jël ci alali bokkaale jënd ci jëdeer sa morom sañ naa delloo ni la déedéet ndare boo nag dala ni dalaa may ndigal ni la jëndal nga ne wa in wati andeem laal na jaaree seen ab jëdeer bu ñu jënd li sërkati ngir bokkaale gi bis nii ci ndigalal kam ko bokkal yow jëdeer boo xam ne dañ ko jëndoon ci alal ji da nga ko laal ci ndigalam xoyi mat xëy maa ko ci kanam tuuti aw bi xëyri ismi wala mu laal ko ci du ndigalam waaye wax xama nag mu ëmb koy mat xaymaa ko mu fay xayma wa ilaa ndem nga xam ne da nga dem maanaam ëmb si nag nga xam ne léegi biirul ah laal na ko waaye biirul paril axiri ñeel na morom ma ci xaawaa ak desalam bu neexee kam bokkal ah mu defal ko jëbeer ba ma dégg nga de ci àll bi bokkaale ga aw mu xaamata wala mu xay ñu xaymaante ko ñoom ñaar mu delloo ko ñu ne way ni sarata ndem tàpp nañu ñoom ñaar nekkal istibdaad yi dàq wéetu nga xam ne kenn ku ne dañu sa morom bu ma fi nekkul bu liggéey fa inaa doon bokkaale gog la maanaam mooy kenn ku ne daanaka da ngaa téye ci sa gogu morom wajaa sa dagal na bokkaale li siy tëri ñeel borom janaaw lu góor wa siy tëri tin borom janaaw lu jigéen an yeta fiqaa ñu dëppoo ala sarikati bokkaale sarati ci cuuj boo amee janaaw lu góor te am janaaw lu jigéen dagal na ngeen dëppoo bokkaale cuuj ndax buñ fàtte ni janaaw lu góor ak lu jigéen ñoom ñëpp dañuy boof bu nenee ñu boof ba mu toj ngeen seddoo wa wax wa dagal na waxam jamonoon istar jëndal lii ñeel ma walaak ak ñeel la wa ndeem daf kon istar jëndal lii ñeel ma ngay wax walaak ak ñeel la ko wakkaal ci wakkil kon nag su boobaa jënd dong na ko wakkil demal jëndal ma maag yow kooku wakkil jënd jënd rek nga ko wakkil wa jaasa dagal na waxam jamono woon kon ko teewalal ani walif ma in lam yaqul ndeem waxul wa ab yow ko addinaa la jaay làkk ñeel la boo déggee wa jaasa dagal na dangaa yónni nit ni ko demal jënd ci laa ci nangam te teewaaleel ma sama wàll soo dikkee na kooku dagal na waaye nag bu ko ne wa abi waa lakk ndax su boobaa lépp buy bi di njëriñ day daal di ñëw ndax comme léegi dalay jëndal fayal la waaye boo ñëwee nga jaayalaa ko wàllam kon nag su boobaa lépp buy bi di njëriñ ñëw la ndax dala doon lebal pour nga jaayaleel ko wàllam walay sa loo dee di ñeel ka ñu digal ci nag xab soit téye ko téye si laata bu la boo ko nee demal jënd maa ngi yow nu bokk te nga teewaaleel ma bu mu ñëwee sañu koo téye ah ilaa am yaqoon ndare boo wax ne ko wax bis laa téye ko ba ma ma lay jox njëgg kon nag boobaa fa kërali ni ki tay la la te kon su boobaa dañ ko tay la indal mustar yi noonu lay mel kon nag da nga koy téye ba bam lay jox njëgg sëriñ bi nee na wayen as la fa ndeem leb ne la xayra mustar yi ku dum aji jënd maanaam tey ah ci dul aji jënd bi dafa leb ne yaa sama dagal ni ki tey waa ji dalaa jox ah xaalis ne la demal jëndi si laa ñëw nu bokk te fayaaleel naa la sa njëg yow nga dem jëndi kon su boobaa dagal na kon dalaa lebal rek ni la maa lay lebalal sa wàll nga dem jëndi ñëw nu bokk maanaam jox la ñaari dinaar ne la demal jëndi am xar boo ñëwee maa ngi yow noo bokk xar mi kooku dagal na bis boo amee nag fayaat ko dinaar ba nga xam ne moom la la lebaloon ilaaka basiratul mustari ndara lu demee ne ki xamuk aji jënd ji su fekkee yow gën koo gën a gën a xam gooku gën a xam xar moo tax mu wax la loolu ah kon day daal doon ba tey lépp buy di njëriñ ndax kon maanaam gën a xam gi nga ko gën a xam moo tax mu nangu laa lebal sag wàll ci njënd wala wóor def na forcé aji jënd alayha ci bokkaale ga inistra leen jënd na say andëf bi soo xii ca jaba wa xayruhu te ku dul moom xaadiru muy aji teew lam yatakallam te waxul min tijaari yi mu bokk ci commerçant yooyu soo jëndee dara ci alali bokkaale ji ka nga bokkaloon teew noppi soo dikkee ni maa ko moom mu ni déedéet ci alali bokkaale ji noo ko bokk soo bañee def na la fakk ci bokkaale waaye laa li ki taf na ko moom la nga jënd ci tukki soo tukkee jënd dara moom kenn du la ca forcé ne dañ koy bokkaale waxe ñettin ak woom li nga jënd nga xam ne da nga koo jënd ngir woom loo kese kenn du la ca forcé ne la dañ koy bokkaale mu ni waa jam yàlla la mu jënd nag moom def na ko ca forcé ah la mu dañ ne la mu jënd ah ca marché ba def na ko ca forcé wata sukaaxi ak ca mbedd yi nag ndax la nga jënd ca mbedd yi sa bokkaale sax ñu waa forcé ni la dañ koy bokk am moom kay loola kenn du ko ca forcé kaw laa ni am na ñaari wax kanam tuuti waxee ruxoo jeey ci kanam tuuti dafa xadam nee na laa ka bayti yii waxuma lu demee ni ci néegam la mu jënd ci néegam moom ni moo ko wéetoo kenn du ko forcé ni ko dañ koy bokk wax boobu yow me ne ba jaasat dagal na bokkaale bil amali ci jëf tey ñaar ñu àndi di liggéey wér na ini kaa daa dem benn na ñaari jëf ya nga xam ne ñoom ñaar dañoo bennoo di jëf da nga de alkala sama wala jëf ja taxoo ni ki kii di ñaw kii di xotti di ko jox wér na da nga de bu ko defee nee na wata saawayaate ñu yemoo fii ci jëf ja nañu tolloo lu ñuy jëf altaxaara baa wala ñu jegeyante ñoom ñaar sartu na tel ba wa asalate amit ka awunu dimbalante kenn ku jeexal dimbali sa morom way indi makaanin doon ci ñaari place la ñu nekk wér na wata jëwaa ci xiraaji kuréel mi ci dagana génne cëpp alatan jumtukaay moo ndax ñaar ñuy bokkaale di jëf tey dañuy ay tailleur bokk seen benn atelier ndax kenn ku nekk da ngay génnee jumtukaay aw laa bu dégg de sa sa machine di ki teg aw laa bu de wala déet jaas ci kanam tuuti ñun mil kin ci bokk moo neel alkiraani wala doon son maanaam kenn dañuy bokk ñoom jënd ay machine wala ñu bokk luyee machine waaye kenn du génnee machine teg taawi laa ni am na ñaar jënta ca kanam nga ni wasi jaari yi dégg nga de li ci dagana yoo leen mi nel aaxari ci morom ma tey ñaari tailleur yi su fekkee kenn ki daa amul machine ndax dagan na mu luyee machine u kenn maanaam yow am nga ñaari machine man aw ma machine ma ñëw nga luyee ma sa benn lu door a bokk ndax loolu dagan na aw laa budde wala def jaas min mil cin ci bokk moom aw kiraay ni wala bokk tontu rek mooy mën a am taawi laa ni am na ñaar jënta bu jëlee na releel ci dagan bi nga ni ko tabi bay ni ki ñaari docteur istaraka yoo xam ne bokkaal nañu te dawaay ci saafara dégg nga de kooku wér na wami tam ñaari docteur bopp di fat wér na wasaay dini ñaari way rëbb ci baase nit ñaari xob maanaam ñoo xam ne dañuy rëbb ci ñaari xob ñu- lu ñu am bokk wér na mu ne waa jam yàlla way nit taraka doonte teqali ko woon na ñoom ñaar kay di rëbb ci fële kay rëbb fële nga ne ruyat am solof la ca mu du wàll dégg nga de alay maaj ñaari wax yëpp mooy dagal nga ak ñàkk ngaa dagal am na ñu ne dagal na bu ñu teqali ko am na ñu ne dagalu mu ne waxaa firi ni ak ñaari way gas di kirikaas sin tul deme ni kirikaas ñaari way gas rikaas moom itam dagal nañu bokkaale wa mahdi nin ak mbel dégg nga de mën nañu maa yow nuy bokk di gas mbel lu ñu am bokk waaye nag bu boobaa nag bu fekkee ilimaan dafa jox nit mbel mu di ko gas ba yàlla dogal muy gas ba ca biir mu faatu wala nga say xa bu yoyoo waari soo aji doon ga bàqeetoo ndesit la ka kaw ko doon nag bu ñëw ni maay maay mot li gas bi déedéet waa tamoo dogat na maanaam mbel ma dana ko dog al imaamu ilimaan maanaam moo koy jox ku ko neex bu ko neexee gannaaw bu waaja dee nga ne ma koy lëttankeef na ñàkk a yoyoog dono ga dinaa ci ndell moo xam ni la ñëpp feeñul dara waaye bu fekkee tàmbali naa feeñ ñu ngi ca am ab reen su boobaa kon bu waaja dee ay donoom ñoo ca gën a yooyu waaye bu feeñul dara nag kooku su boobaa gën gënuñu caa yee wax boobu foofu yem foofu nga ne wala si mu xoo war na kenn si ñaari may bokkaale maa lépp loo xam ni yàq ba xoo dana ko nangu saa yi bu xoo morom ma tey nag boo àndee nit ngeen di liggéey lépp lu sa morom nangu bu ngeen def tayal fii si jaamur bu mu jël loolu war na nga nangu ko nam nam ko waree la la war a yow wa demaanu ak warloo nit war na ko maanaam boo déggee warlu nga mooy fiis bi bu ngeen bokkee atelier bi fiis bu mu jël na mu ko warloo noonu nga ko warloo bu réeree yéen ñëppay fay waaye tafaatu laa doon teqali ko wala ñaar kenn ca cantine bee kenn ca cantine bee te yéen a ànd waaye woo koy wacceef na mara du ko yow may ni feebaru dana ci ñaari fan def na ko wacc waxay bëtuma ak faddu ñaari fan ku tukki ñaari fan duñ ko limaale maanaam du tee bu ñu seddoo bénéfice yéen ay tolloo kenn waaye daal ko suñu ko mënee bar na ba ñaari fan nag ah su boobaa kon kat gis na ko limaale ba fasalat yàqu na bokkaale bi laa ci sàttan maanaam maanaam sàtt wacc feebar boobu ñaari fan ak tukki boobu ñaari fan bu ñu ca dugg ni ku feebar lu yàgg it dañ dara lu wàññi ci sa wàll wala ku tukki lu yàgg it dara lu wàññi ci wàll kooku moom yàqu mu ne mu dina ne yàqu gi mu ne ko kasirat aalat nekk aji naka wéetoo kenn ci ñoom ñaar bari jumtukaay kese def yorul benn jumtukaay sañu sàrt yemoo kooku moom itam ba tey day yàqu ndax loolu dafay daal di nekk ëppalante bu fekkee kenn ki moo am jumtukaay dégg nga ne kenn ki amul dara kon ëppalante ñëw na mu ne waa jàmm yàlla ndax ñun xaa def na wa ci alyawmaani ñaari fan la te say xëtt naka woon ci bokkaale gu wér waaw bu fekkee tey dañuy bokkaale bu ñu sàttee bu ñu sàttee ni dañuy ya- du- dañuy wacc ci feebar bu ëpp ñaari fan te loolu sari am nanguwu ko ndax léegi bu ñu ko sàttee ba noppi ndax ñaari fan ya moom du tee moom def na ko wacc rek ka tey la ko woon ci bokkaale gu wér du tee moom duñ ko limaale la ko def kay la ñuy lim am moom kay buñ ko xamee buñ xasee sàtt lu ëpp wacc lu ëpp ñaari fan bokkaale gi ci boppam yàqu na ñaari fan yi ñu waroon a mayee sax yàqu na boole te te duñu am nañ ci léegi-léegi nga ne ma yàqu na bokkaale di sira ci maa ci bokkaale seen ñoom ñaar ci simami ci baat dégg nga de ah mooy al istila ñun jël ñoom ñaar bi laa maa leen tudd alal dégg nga de tey nan dem lebi rek bokkaale déedéet loolu wéru bu tàddate wàcc waxoo moom la ñu jënd la bay noo maa nekk na seen diggante waaw waaw la ñu jënd ñoo koy bokk waka ba mu dellu atik ca bokkaale gu yàqu waka bay way ji inni ki njaayam aji suufee daraja maa la xaamil alal aji aji suufee daraja aji kala daraja waka bay way ji ak njaayam aji kala daraja mu jaay maa la xaamil aji suufee daraja bi jënd ci kaaj yi ci tolaja yow tey waa ji dafa amul daraja yor alalam nga ne ko ah boo ma joxee man li nga xam ne bu may jaay ñëpp jënd day mën naa ko jaay te am sulus ci tolaji kooku dagal ndax loolu ba tey ah ni ñu ko tuddee mooy ah bokkaale bu yàqu lay doon su tàbbee ko wàcc nag looy am yow ma ko ko jaayal mooy da nga am ujur tulus li rek maanaam da nga am yoon bu day ne la nga jaay mu ne wa ki wa kasiraan ak ni ci borom gën wa ci baytin ak borom nekk wa ci daabatin ak borom daaba ñoom itam dagal ñu bokkaale lii xamaloo ngir nañu jëf kooku dagalu moom itam bokkaale bu yàqu la in lam yàqu saawa ndéem yowul kiraaw tontu ya dégg nga de nga xam ne tontu gën na mooy la ñuy wale ak néeg bi ak daaba ji yemoo ñu te ñooy yemoo ca tono ja kooku kon su boobaa bokkaale bu yàqu la wata saawu te yemoo mu ngoog seen xalat ci xalat nu ñuy def nag su boobaa bu tàggate wàcc watara du dalañu daloon ci al akrete tontu ya maanaam tey kii daa yor daabaam kii yor gënnam kii yor néegam ñu dajaloo ni nanu bokk di dëbb di fayu ah te nag ñooy tolloo lu ñuy am ñu ne leen déedéet su boobaa nag dañ kenn ku ne dañ lay delloo lu bu ñu tegee xàll ji li ñu bénéfice ba séddoo ba noppi kenn ku ne dañ lay delloo lu day ne la fa la la nga la la nga am nu mu toll ci tont loolu lañ lay delloo ñu tënkee ra ja ba ba da ra gën ga dañ naan jiim ñett la ñu jox ko ñett borom baa béy ci néeg ba baa ñaar la nañ ko delloo nañ ko def ñaar borom da daabatu borom daaba ji jox ko da a benn kon su boobaa dañuy teg tono ji jox borom gën gi ñett jox borom baytu bi ñaar mooy tontam jox borom daaba ji benn mooy tontam door ci nga ni way ni su ndem sàtteef na waaye su ndeel ta def na amal rabbi daaba ci jëfi borom daaba nga xam ne ay borom daaba ji dong moo doon liggéey ña ca des jëfuñu dara fa daa fa xal xala ji loo ñëw na ko waali wàlla ko nag kiraawuma tontu néeg ba ak tontu gën mu fay tontu néeg ak tontu gën waxu yaa def na ala sarikin war a bokkaale fii maa ci lépp loo xam ne laayen ko su mënee si ko séddale des des na atte des na atte waral bokkaale ba am yu amara ñu dundal ko aw yebbi wala ñu jaay ko ñaar ñu bokk lu ñu mën ko séddoo ah dégg nga de kenn ka ni ko nañ ko réparé wala ñu jaay ko kese des bañ ñu atte forcé ka bañ mu nekk ci suuf li ni ki borom kër moom itam da nga naan des na atte waral ko in in waxee ndem doye dina dégg nga de waale it nekk ca kaw taalixu aju waay ba bu fekkee tey da ngaa yor kër suuf benn waay nekk ca kaw ah te léegi toiture bi bëgg a daanu des na la forcé nga defal wa saq fu téeg dégg nga de moom itam ah mu war na koy sëq fu teen moom borom kërub suuf bi moo war a def teen ni tiim ni ko tiim wakkan sulmit aadi war na ko moom borom kërub suuf muy maanaam bale régol yi boo déggee régol yi maanaam mooy demee du seen yooyu waaye laa fula mel waxuma kerkeraan waru nga ne woo dégg nga de kerkeraan mooy raas bu xam ne kata kaw moom lay yéege kooku kenn du atte ni ko yaa koy def nga ne woo def na atte ba tey bi adami si at ci ñàkk a dolli kaw su fekkee yow da ngaa dëkk sa kaw bëgg étage di dem rek ah ci suuf ni da ngay daane da ngay daane ci sama kaw ñun déet yow itam tegal ci kaw lu yem rek ñu ne faaw luñu inoxas sa ndel lu woyaf xanaa lu woyaf nga koy teg woo def na atte ba tey bi sax bi ci seen ma lin ak fali ñeent gën a suuf suñuy werante toiture bii borom étage bee ko moom wala ki ci suuf ah wax dëgg yàlla ki ci suuf kay moom moom li li ko tiim moom la ñu àtte ni moo ko moom ba def na àtte bi daaba di ci daaba di raa ci bi ngeen aji war ga su fekkee ñaar dañu ko coo daaba ka ca war lañu koy àtteel waaye laa mu taal ko mu aju aju bi li jaamin ci laab de kii dafa aju ci laab bi rek kii ni maa ko moom kay tëyee ci laab bi tax ñu ne ko yaa ko moom nga ne wayen akaama dem taxawal na mooy jubbanti waat xadum kenn ñoom ra am gën istaba yaa ba ñu bañee ñaar dañoo bokkoon gën gën nga paan kenn ka dem defaraat ko bu doon tëyee da nga daan machine ba paan ndax gën bu njëkk mooy machine u léegi kon fal xalatu xala ji lahum ñeel na leen maanaam ñetta ko bokkoon dégg nga de ñaar ña lànk ni ñun du ñu réparé kenn ka dem réparé fal xal su xalaja dana um ña leen waaye waaye soo sey dana fayu moom ma réparé min xaa ca xalaja maan fa xalam ko dundaloon waaw waaw nga ni wa def na atte ba tey bi def ñu ci ndigal ci du xooli jaar yi ci xarafu dëkk dëkkandoom maanaam lu ma bëgg a wax da nga ni sama dëkkandoo sa sa miiru sa dëkkandoo dafa daanu mu ne la jaar sa biir kër jubbanti ko nga ne ko doo fi jaar ñu atte ne ko ahakay lu islaam ji daal nga yéene nag mi wane wi añu ko ñu wa def na atte ba tey bi xis ma ci dig sa doom in toli bat nel sax kof la ah xar nañ ci yaatuwaay tey yaagu waa ji da ngeen a bokk lu ñu war a séddoo dégg nga de ni ci malaan xam nga malaan bu ngeen ko séddoo ci yaatuwaay bi lay baax ah moom mu ni ci guddaay bi kon keneen nañ koy séddoo ardal la ñuy dëggal ardal ma nga nële ca kanam tuuti waaye laaj bi tool waxuma guddaay ba de ndax bu nee nañ ko xar ci guddaay bi kon kenn ku ne daanaka da nga yàqule ak lépp loo xam ne yaatuwaay ba lañ ko war a séddoo mooy baax waaye guddaay ba du baax kon keneen nañ ko séddoo ci yaatuwaay ba la ñuy àtt yeeyoo ko nga ne ma def na atte ba tey bi yaat saakir ci delloo saakir li koy ñeel keneen in adamoo ndem mabba na ko dara lan ngir ko jublu lor yow tey da ngaa dëkkan ni miir bi doxoon seen diggante nga takk ngir jublu lor su boobaa ñun la delloo waaye laal islam waxuma si dañ koy yéwee na la tax kenn du la forcé sëriñ bi nee na aw xat mi ne wala mabba tax kenn du la forcé nga xam ne miir ba moo daanul boppam kenn du la forcé nee nañ ko defaraat nga ne ma def na atte yeyel ba tey bi at mi binaayen ci mabba tabax bi tarixin ci yoon wala lam yebdra donte du lor kenn da ngaa mabba tabax da ngaa tabax ci diggu yoon def na la atte ne la toj ko donte loolu kenn ndax biir yoon ñëpp ko bokk mooy mbedd yi nga gis rek ku tabax ci digg mbedd wax dëgg lañ laa war a forcé nga toj ko wa def na atte ba tey di julloo ci baat yi ci gerte gi way jaay ya daaf ne ci dóori ci ëtti kër ya li bay ngir jaay dan xafanee wayef na lu ñuy jaay boo déggee af ne ci dóori mooy déngari bi ci sa buntu kër rek bi nga toogee ci sa buntu kër mbedd mi li fi nekk bu waay ñëwee teg taabala mi lay jaay nga ne ko doo fi jaayee ah kooku kon def na atte ne ko ah kay in xafanee wayef na lu ñuy jaay la wa def na atte ba tey di saabixi ñeen aji jiitu kama ci liñ ci lu demee ne ki jàkka jaja jalañu koy tënkee jàkku ak jànga ak ja jàkka dafa jiitu la ñuy àtte ni kenn du jógloo kenn ja marché ku jëkk a lal dégg nga de ak jàng ku jëkk a toog loolu lan daan wax nga dama def na àtte ba tey bi sàddi kootin ci ma dafa nekk fa teet boo xam ne ubbeef na ko wari da boo xam ne na meef na sa doa ak ma dem xalfaate gannaawam da ngaa sopp sa dëkkandoo ubbi ko nekk mu sopp ko rek mu ni da nga ko fat ah moom la ñuy ñeyel ni ko ah kay dan soo ko fat ba def na àtte ba tey bi man idogaan ci tere saxar ka amaam du demee ni ci néegu xamaam dégg nga de xibala bayt ni ci wàllu nekk ci kanam tuuti tey da ngaa taal néegu amaam mu jàkkaarloog sa dëkkandoo tolloog buntam di di fat di xër di ko xër ñun la déedéet loolu moom saxar si na si jóg waaye atin ak kadi baaxin ak katub lu demee ni ci sëbit wala bayt ni ci wàllu nekk ni ki da ngaa wut ay mbandi su mbandi yooyu wulee der mu xeeñ kon nga jàkkaarloog buntu kër nit muy muy ëlwaa kër bi ñu àtte ne la déedéet wa an dërin ak weeruwaay xibala bayt ni ci wàllu néegam nga dem def fa ab weeruwaay ba tey dina la àtte ñu la déedéet na nga ko dindi wa mu jërin ak lépp luy lore bi ji daalin ci miir ni ki da ngaa dëkk benn nit dem di gas foo xam ne day lor miiram ñu àtte ne la ne soolal gas na ak ñu demee nekki noonu nee na was tamit ak wuddu fas te baal te baal di ci njël buntam ca kanam tuuti maanaam da ngaa wut wuddu fas def ko ci njël buntu këram ah lefara ja di dugg ca këram daanaka wala muy xeeñ ñu ne la ay ca nafija alxaanul in wala bitik sabal ta badi njël buntu këram ba tey ñun la bañe ñu bi nga ne ma def la atte ba tey bi xatti maa ci dog lépp loo xam ne adara dororo min sa jëlin moom garab la mooy lor bi judaa ci miir da ngaa dikk ba fekk sa miir koo dendal kër nga daal di fay jëmbat garab garab ga màgg di toj miir ba ñun la dagal garab ñun ko jam dem garab ga yeesi la way laa ndem garab ga yeesiwul nga xam ne ba muy miir miiram fa la fekk garab ga fa xaw laa ni am na ñaari wax ci def na atte dog ak ñett daal waaye laa maa ni hidaw hin waxuma aji tare jeg leer da nga am garab bu sëkk sa kër carga di dem ci sa kër dëkkandoo ba du këram di du du am leer lool kenn du àtte ne lañ ko dog wasamtin jant wariin ak ngelaw ak wasamtin ak luy tere jant wariin ak luy tere ngelaw kenn du la ko tere te mooy garab bu sax gu ne sa kër rek ba nga xam ne dafa xaw a lëm sa kër dëkkandoo kon kenn du la ne da nga ko dagg ndax garab baa ngi sa biir kër ñu ne faaw mu ne ilaali andirin dara weeruwaay la su fekkee ni weeruwaay dafa amoon ci digg kër gi sa garab màgg ba mënatu koo am ah kon nag ñun la wàññil car yi wa uli binaayin kala tabax ji su ko atte bu sa ka da ngaa état sin sa dëkkandoo mu ne na kas déedéet wasal cëkk kamadi ak baatul demee ne ci tàpp yow da ngay da ngay suuf ay yére di ko tàpp mu ne na bàyyi tàpp tàpp ji loolu kenn du ko atte bu baa din ak bunt bi cëkkatin ci mbedd naaf ci laaji fël da ngaa génne ci sa buntu kër benn buntu boo xam ne ci mbedd mi la mbedd mi dafa romb dem kenn du leen lan ko sax waraw seneen ak mbagg nafasat noo xam ne fël la ca kanam tuuti maanaam da ngaa da ngaa fekk sa miiru kër nga wut ci benn balafonaas boo xam ne dafa ci mbedd mi te du laal du laal bopp nit ñi kooku mën itam kenn du la ko atte leen la ko dindi lafa sax ci kanam tuuti wa saabaat yi bu la neexee nga ni ak ab pom ndax saabaat dañ koy firee nëpp la ci téeg waaye mooy pom rek wa saabaatin ak pom lafa sax boo xam ne fël na da ngaa moom kër gële ak kër gi mbedd mi dox ci diggante bi nga wut benn pom mu ci nit ñi nga xam ne boo bëggee dem ci kër gële da ngay jaar ca kaw rek ca kaw pom ba rek dem ci kër gi te dara nekk aha li man ñeen koo xam ne loo ñëw na ko nag jaani baari ñaani wàlle bi ci këtin ci mbedd nafa sax noo xam ne fël na ndem nga xam ne mbedd ma jàll na nga xam ne pom bi da leen a tiim rek kon su boobaa yow mën nga mën ngaa def pom bu tiim mbedd bi di sa kër gee bu la neexee nga dem sa kër gee bu la neexee nga jóge ci jik ci kër gi jaar ci kaw wa ilaa ndem mbedd ma fëlul nag nga xam ne foofa penc la fa kal mel ci nekk ak moo mel li jamin ñeen ñëpp kon sa ñëw ko faa def ilaa baba ndëre bunt ibnu ki ba ndeen jengeef na ko bunt bam tang ko wubbi mu jàkkaarloo mbedd mi waaye na nga ko jàngal wa suudu nax la tin ay yéegu tàndarma ko kenn du atte ne la doo ko def da nga am ak tàndarma ci sa kër sa dëkkandoo ni doo ci yéeg ndax da ngay xool sama kër ñu ne ko ah ah kay wa an dara ak weeru waay wa an sara waarat na nag bi tulooy ci yéegam booy bëgg a yéeg na nga ne ah danaa ci yéeg suba pour waa ji lépp lu muy nëbb mu denc ko ah waaw sariya dafa bëgg sutura lool wala di ba soppeef na ihaaltu ji daal yi abal miiram nga kat xas ba si ngir jëmbat bant tey da ngaa miir sa kër may itam ma bëgg a miir waaye waaye sopp nañu nga bàyyi ma jël saab miir saf ci sa miir wala ma jël samay laati sàkket taf te kaw nga waaye faaq man soppeef na jàppandal bi mayin ci ndox wa fat ubaadin soppeef na ubbi bunt ba tey sa dëkkandoo mën a romb jaar noonu sopp nañu dama ne woon sopp nañu jàppandal sa dëkkandoo mu jëmbat bantam dégg nga de wala hoo ñel na aji ab leja an yar ji amu dellu dégg nga de calal ko abaloon maanaam da ngaa abal sa dëkkandoo suuf mu jëmbat ci ay ñambeem wala ay pataasam bu la neexee nga toog nag ba mu yàgg nga ne ko léegi damaa bëgg nga delloo ma sama suuf waaye waxtaan nekk na ca mu diwaan xanaa ba mu tey dellu in dafa andeen jëñ namaan fa xala ca dëkkandoo ji dund noonu maanaam na fekk nag nga fay ko bon lam ca fare woon lépp ca njëmbatum garab ya ak lam ca jëmbatoon ci ay punooxam yooyu aw ximati wala nga jox ko xayma ja door a jëlaat sa suuf ba fi mu baax ak mitig dëppoom ndax loolu ak dëppoo la te kon ba mu ne maa an faxa mooy lam da koo jëndoon maanaam lam ca jëmbat lam ko jëndee loolu nga koy jox bam ne aw xiimati yi mooy la mu jëfal boppam nga jox ko xayma jox wa mu xaalifati wala wuuteem kon ne leen seen saayal si baat dafa am fu mu ne maan faxa nga koy jox am fu mu ne xiimati nga koy jox te du am na ci déng déng faslun li ko leen ñeel na képp faslun mu saaraati firi baylante ah in lam yëpp in lam yëpp sam leen jiyeefu baylante mooy nga jox nit jiwu mu dem bay boo noppee ah moom itam mu sonn ngeen ñëw nga jox ko wàllam kon nag fakkul mu saaraati fay bi lante ina bi sundéem jiwul wasaat wér na in salimaan de mucc nañu ñoom ñaar min ci daay addi ci tontu suuf bi mam nooen ci lépp lu ñu lu ñu tere tey kon yonent sallallahu alayhi wasallam tere na tontu suuf lépp loo xam ne day sax ci suuf wala tontu suuf ñaaw kooku hadisu Rafi ibnu Khadij moo ko solo ci Bukhari ak Muslim dafa ni daananu luye sunuy suuf ñu dina jox ay aw suuf ci tàndarma ak ci sangir ak ci pet yonent ñu déedéet baleen ko kon nag loolu hadis waxaaba kon nag suuf kenn du ko tontu lu jëm ci suuf waxaaba laa te tollo sa musaawin def lu di aji yemoo moom mooy jëf wa saariatin yemoo ñaari way baylante ya la ñu yemoo ca xàlla ja bu fekkee da ngeen a bokk di bay bokk lu ngeen jëf nañ tolloo nekk lu ñuy am ilaa di tabaru ndara coobare wu badal ak di gënaaw pas-pas ba su la neexee nag bu ngeen bayee ba mbay ma jeex am kenn ku dimbali moroom ma yokkal ko kooku moom sañ wax sàcc la ca baylante ga waxaltu ba ak jaxase jiwu in kaana ndem am na jiwu lañu ko jaxase wala bi ixraaji ma doon ci génnee seen ñoom ñaar la donte da ngaa génnee saaku gerte kee génnee saaku gerte ngeen teg baax na waaye nag fan la ñet buñ dem saxul basru aadi ma jiwu kenn ci ñoom ñaar ba ulli ma ta xameef ko saxlewul la ñu ta sëb deekul limaale bii ci moom seen xaram dem war na da ngaa andi kemb gu baaxul kay andi kemb gu baax ñu jiba not yow saw jiwu dara saxu ca kon nag su boobaa kenn du ko limaat waali war na ko nag mislu nit si naabiti moom ko saxlewul genn wàllu ah, genn wàllu ka saxle bu ko defee nag comme keelam aw jiwam sax jox ko genn wàllu xaymaam wasar umbay ma baynumaa nekk seen diggante ci kanam ko wa ilaa ndeem dama ne woon in xarra ndeem war na nga xam ne da ngaa andi jiwu bu baaxul wa ilaa ndeem warul kon fa ala kulli war na képp ni su basir laaxir war genn wàllu jiwu morom ma sariya moo maanu su fekkee yow mi andi jiwu bon xamoo ko woon kon su boobaa ki saxle na la delloo sa genn wàllu xëy may jiw nga delloo ko genn wàllu xëy may jiw wasal ko mbay ma bay na maa nekk seen diggante mu jëlee ne leen ci wasal fu bay na ma kanta saa yaa ni ki ndeem yemoo nañu ñoom ñaar fi jëmi ci lépp yéen a bokk def jiw bokk def suuf bokk jëf ngeen yemoo nekk mu ne aw xaabala wala tolloog basalu aadima jiwu kenn ci ñoom ñaar xamalul jëfi morom da nga de yow da ngaa andi jiw ma andi jëf man ma dikk bay te suuf si lu bokk kon su boobaa dagan na monsieur Dose ndax sa jiwu tolloo naag sama jëf aw arduhu wala suufam dégg nga de wa basroo ak jiwoom tolloog jëfi kenn ka dégg nga de yow da ngaa andi suuf ak jiw man ma jëf te jëf ji tolloo naag suuf seeg jiw bi kon ba tey ñu séddoo aw bawduhoo wala lenn jiwoom ak suufam tolloog jëfi kenn ka ak lenn jiwoom aha da ngaa andi suuf ak lenn jiw ma andi jëf ak lenn jiw kooku dagal na ba tey su boobaa lu bokk in lam yanqus ndem du wàññiku maa lan xam ne lil aamil ñeel na aamil ji anis bati basiri yi walif askane jiwam ndem nag xam ne aamil du wàññiku le aw li adima wala ñeel kenn ci ñoom ñaar aljamihu lépp maanaam am na koo xam ne andi na jiwu andi suuf ka ca def jëf mooy ilal amale ndara jëf rek kenn ka rek moo jëf kon su boobaa ba tey wér na ina xadaa ndem fas nañ ko bi lépp sëkk ci bokka ci baatu bokkaale waaye laa ijaati buñ ko fas ci ci baatu yoole maanaam kii andee jiwam andi suufam yow nga dem futiku ba mu la ni dama lay yoole na na ngeen ko fas ci baatu sëkk awat la xaawal ñu boyal ko ñoom ñaar buñ ko bokkee boyal ñoom ñaar ah kon it ba tey du wér buñ ko boyal nañ ko def ci baatu sirk te in xaayi ardim ni ko ci suuf wa tasaawa yaa ko yemoo ñoom ñaar xëy na xaalu dul suuf sax kay andi na jiw ñu bokk jëf ñu ne suuf si moom duñ ko limaale ba tey bokkaale gu yàqu na aw liyaa dimaa wala ñel kenn ñoom ardun suuf rakk si tum su daaji yolam wa amalul jëf ak jëf ala la say wax ji gën a wér ka ca des def jiw maanaam yow da nga am suuf su yomb rek naa futiku liggéey kee jiw dong lay jëf suuf si kenn du ko limaale loolu bokkaale gu yàqu na ndax li muqaabalatil ardi bahdil basri ndax fop lenn suuf sa lu mu yolom yolom suuf sa tolloo laak lenn jiw wa wayen parce que dañ yàqu ne bokkaale ga waxta kaafaata ñu nawloo ñoom ñaar amalan ci jëf nga xam ne bokkaale yooyu nga xam ne sàtt yi dafa yàqu da ngeen a jëf yéen ñaar fa mbay ma bay no maa seen diggante waaye nag watara daañu delloon te xëyruhoo dégg nga de leneen su ko defee kenn ku ne nañ la delloo lu day ne sa jiw wala sa suuf kee moom moom suuf kee moom jiw loolu lañ doon bañ su ngeen bañ leen te bu ngeen noppee kee ñu jox ko tontu suufam kee ñu jox ko dégg nga de maanaam napp jiwam door a seddoo wa ilaa ndeem bokkuñu ñoom ñaar jëf dama noon wa takaafa amalan wa ilaa ndeem ñoom ñaar jëfuñu kenn képp jëf fa mbay ma lil amili ñeel na amil jëf kii dafa andi tool kii andi jiw ñu ne loolu la ñuy bañ ndax tool tonte nga suuf lenn jiw wa kenn ka liggéey kon fa lil amili mbay ma lépp amila koy moom waaye waali war na ko al ujratu su boobaa ne def yoonu suuf waaw ka moom suuf sa la ko def yoonam kaana moo xam nekk na loo ñeel amil basul jiw maa amalil ànd ak jëf aw ardun wala suuf ànd ak jëf bu fekkee dafa am suuf ànd ak jëf mu jox kenn ka xëy may jiwam aw kulun wala képp ci suuf ak jiwu li ku lim ñeel képp bu fekkee kenn ku ne dafa andi jiwu andi suuf kenn ku ci ci jëf ka jëf moom moom lépp delloo kenn ka xaymay yoonu suufam ak xaymay jiwam baabul ci xatul wakaalati wérug wakiil fi xaabiri niyaabati nekk na ci lu nangu wuutu min aqdin moo xam pas-pas la boo fas seen ak firi pas-pas wér na nga wuutu nga wuuta nga wuutu ca nit ni ki dem demal takkal ma jabar ñu demee noonu firi it wér na nga wuutu ca nit dégg nga de waxab din ak nëb waxab di àqin maanaam ak nëb àq man ngaa wakkil ku la nga bali àq boo koobatin mbugal wér na wuutal ni ki gétan ak yu demee noonu wa xawaalatin dégg nga de ak soppil wér na wakkil maanaam wér na wakkil nga soppil nit ba ibrahim soppil nit maanaam man nga koo wakkil ni ko demal ci diw mu jox loolu nag ma la amee noonu wa ibrahim ak dañal wér na wakkil dégg nga de wayen jëy loo donte réeré na àq ja salaas nit nit nit ku la ameel nga wakkil nit ne ko demal ni ko baal naa ko àq ji ma amee loolu wér na wa ajjim aj wér na wakkil wa waaye dégg nga de aj maanaam mën ngaa wakkil ku la ajali wa waaye din wér na wakkil kenn ku soomatin dégg nga de maanaam ci layoo maanaam boo xuloo nit lu mu la amee nag nangam wér na nga wakkil koo xam ne moo lay waxal wayen karee doon usi boon na ko xas moo xuloo waale waaye nag laayoon xaadoo xuma leen jekki waale nag xas moo xuloo waaleem te tracim demee na ci ñetti jotaay léegi waa ji bu ngeen xuloo ñetti yoon yoo xam ne bu ne da ngeen a dem tribunal di atte wu duwatu ngay wakkil kenn i laa di sundere ngan bu boobaa nag waxala ko jiñet na moom ki nga xam ne dafa wakkil ne wu yey dafa wooye ngan ah dana giñ ngay wax ci ka safantul demee ni ki tukki su fekkee tey tukki da laa bett nga wakkil nit da nga gin ni da nga de li ma jublu ci wakkil gi maanaam mooy damaa am ngant moo tax sëriñ bi nee na walay sa loxo dégg ñeel wakiil ilay sin foofee nag aslu ak folleem dégg nga de waaw kay walay sa loxo dégg ñeel mu wakiil ilay sin foofee aslu ak folleem mu wakiil nag boo boo xasee ba fal wakiil sañoo ko folli wala loxo dégg ñeel wakiil atu na fii folli boppam wakiil sañ ko folli boppam wala la xaaru jéggi ñu tudd wakiil sañ ko tudd dem rek daa ne ameel sama ki ma yónni ameel na la mu ne ko sa sa mu wakiil ameel na ma nangam mu ne waaw waaw ameel na la loolu wakiil sañu te la muy fayu dem jooylu loo ñeel ko waaye bu ko ne wakkil naa la wakkil mu fawat su boobaa sañ naa tudd ne ko ameel nga ko aw yit al wala mu def loo ñeel ko wala mu ne ko dégg nga de ak tudd ni ko boo demee tuddal ni ameel naa ko kon su boobaa wakkil sañ naa tudd sëriñ bi nee na wala xas ñu ñeel na ku loo waaleem iltilaaluhu ak loronoom ilayhi jëm ci tudd maanaam yow boo xuloo ba mujj nga wakkil kenn ka ngay xuloo sañ ne la ah léegi nag damaa bëgg nga nangu dégg nga de wax sa wakkil mu tudd waaw waaw du ma nangu mukk koy wakkil te du tudd de ko kon sañ na ko moo tax mu ne wala xas ni ñëw na xuloo waaleem iltilaal loolu moom ilay jëm ci def wakkil muy tudd waaw waaw na wakkil tudd sëriñ bi ne na xaa nga ni xaala wax na maasaar yi jëmi boppam wayen xaala ndeem wax na ah mu wakkil ni wakkilam ak xes tuddal ani wala fa daal ci junni kooku fay xiraaru ak tudd la de bu ko nee soo demee tuddal ni ameel naa ko junni tudd na ko ba noppi waaye laata ko yemi ni wérul wakkil lu demee ne ci ngiñ boo déggee lu demee ne ci ngiñ maanaam lépp lu nanguwul wóotu ngiñ ak sihaar ak julli kenn mënu koo defal kenn wa masiyatin ak mooy yàlla wérul wakkil te nekk demal rey bakkan wala demal naan sàngara kooku moom itam wérul wakkil te siyaar yi nit siyaar siyaar moom itam wérul wakkil maanaam nga bëgg ni nit demal siyaaral ma sama jabar wala yu demee noonu ah ah mu nit wakkil nag maa saa yekkoonu nga ne yekkoon dina nekk bi maa ci lépp loo xam ne yeddul dina mu tekkal urfan ci baax waaye laa bi mu jële di wakkil tukk waxuma lu ñu rafle di wakkil naa la kepp wakkil naa la kese du mën a nekk wakkil ah balli fi nekk xanaa ataa yi fayu dem ba te mu jooyalee bu boobaa fayam ji dina wéy nasru njub ak lu njub ilaa an yaqoola ndare boo wax ne wakkil naa la njub wa xayru nasri ak lu dul njub kon lépp lu wakkil wa def dana wéy ki la talaaxa ndare fase ay jabaram bu ko defee du wéy wa in kaa bikri ak sëyloo xiigam bu ko defee du wéy wa bay idaat sukunaaw jaay këru dëkkuwaayam bu ko defee wa abdi jaay ay jaamam du ko wéy aw yu xëy na dama noon bal ataa yi fayu dem ba te mu jooyalee aw yu xëy na wala mu ràññeel ko dina sin ci yaxal aw xar nit wala mandarga yaxal mooy demal wakkil naa la nangam loola moom su boobaa loola neex def aw xar nit wala mandarga nga ne wa taxas sa jagoot na nag wakkil dina jagoo bil urfi ci baax ci kanam tuuti waaye wa taxaay di tënkoot na bil urfi ci baax boo xam ne kon falaa yoxu doo du ko jéggi soo déggoo mu ne wa taxas sa jagoot na bil urfi ci baax maanaam bu la waaye ne demal jëndali ma malaan ah su boobaa dana jagoo malaan may yàlla ci moom naka noonu bu la nee jaayal ma nangam nan ko jaayee njëg dañ koy jaayee ca marché ba loolu mooy wa taxaay di tënkoot na bil urfi ci baax ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك